lépp lu jëm ci wàllu wérug yaram dañ ci ànd ak Fatou Kiné dem ñabaa Fatou Kiné euh, ñu gërëmati la ca fajar ba tey yaa ngi ñuy jàppale ñaari jotaayu xibaar rek doy na participation ci yeewu leen boo ci tegee euh, di ñu sensibiliser itam ñu jël euh, tey mooy bis bi nga xam ne nii moom la ñu jagleel xeexub jàngoro bi di tuberculose muy journée mondiale de lutte contre la tuberculose feebar la boo xam ne ni ci borom xam-xam yeeg seen i gëstu bëri na lool ci réew mi muy mbir moo xamante ni yàgg nañu ko xeex waaye dañagul à cent. dañagul di nuyu ñoom Euh, bijou euh, robe bi jekk na di nuyu Mado euh, Mbaye gar mi maa ngi lay nuyu di nuyu également ñi nga xamante ne ñi ñuy bàyyi xel bu baax a baax ni nga ko waxee tey mooy bis bi ñuy xeex jàngoro yi tuberculose mm-hmm. ci wolof nag gën nañ ko xam ci sëkkat su tarsi sëkkat su tarsi mi ngi noonu ñaar mm-hmm. fukki fan ak ñeent ci weeru mars li ko waral mm-hmm. Pape Cheikh xam nga ci atum 1982 ci la médecin allemand boobu muy docteur boobu ñu gën ko xam ci Robert Koch day sax Robert Koch moom virus bi moom ko tuddee mi ngi noonu tuddee ko basil bi sax euh, ñu duppee ko turam boobu muy coque basil de coque. d'accord ndax basil de coque boobu moom moo moom mooy indi euh, feebar bi nga xamante ni moom mooy tuberculose. Hmm. moom médecin allemand boobu ñu ràññee bu baax a baax ndax ci atum 1905 également euh, ci la am prix Nobel de la santé ñu daat ko koy décerner. Hmm. donc mu nekk xeex boo xamante ni ñu ngi koy xeex boobu ba léegi. Hmm. waaye nag ba nëgë ni dañoo gis ni jàngoro ji mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi gën di law ndax bu ñu xoolee bu ñu jàppee ne wàññeeku xëy na ci benn côté bi. beneen xeetu euh, tuberculose boo xamante ni. Mhm. tey jii mën nañ jàpp ni mi ngi def ravage fii ci euh, Sénégal. Mhm. donc mu nekk loo xamante ni war nañ cee gën a jël ay matuwaay. voilà euh, liñ ci euh, mën a jàpp itam mooy euh, ñun bi ñu gën a xam mooy li jàpp dënn waaye dégg naa ñu ne tuberculose moom dafa bëri façon. dafa bari façon ni ñu ko waxee noonu bi jàpp dënn moom la ñu gën a xam ci tuberculose pulmonaire. Mhm. moom la ñuy gën di gis d'ailleurs du sax Sénégal kese partout dans le monde mën nañu ne xeetu tuberculose boobu la ñuy gën di gis waaye am na ci beneen xeetu tuberculose boo xamante ne également bu weesoo dënn bi dafay faral di jàpp rein di faral di jàpp également léeg-léeg mu jàpp yax yi mhm. boobu mooy beneen xeetu forme tuberculose waaye am na ñetteel bi tamit ñetteelu mhm. forme bi boobu maanaam dafa lëkkale form bu njëkk bi ak beneen forme bi ndax boobu bu weesoo euh, xëtër bi muy jàpp day jàpp euh, li nga xamante ni moom mooy rey day jàpp yax yi mais également mën nañ ne fépp fuy cër ci yaram bi mën na koo jàpp boobu moom mooy xeetu tuberculose bi nga xam ne. Mm-hmm. loolu yëpp la jàpp. yëpp lay jàpp xam nga ñun tuberculose pulmonaire bi mm-hmm. euh, pulmonaire euh, la ñu gën a xam ba tey sax ci ay gëstu yoo xamante ni euh, gis naa ko mais gëstu bu yàgg la xam naa ni programme bi nga xamee nii moom lañ tuddee PNT am na gëstu yu bees yu yuñ ci am mais ci programme boobule ñu ngi doon xamal ni xaw na yàgg tuuti ci ay chiffres ni lu toll ci douze mille huit cent dix cas de tuberculose lañ jotoon a détecté fii ci Sénégal lu toll ci. 3 pour cent rek a ci faatu parce que ñeneen ñi euh, jot nañu leen faj. comme quoi feebar bi boo ci teelee jóg mën nga cee wér. mi ngi noonu parce que bu njëkk bi li mu daan faat ci doomu aadama dafay bari. Mhm. mais léegi parce lu tax mu daan bari euh, xëy na nit ñi euh, joxuñu xamuñu woon feebar bi dëgg dëgg dëgg. ak it mhm. tamit léegi xeetu garab yi nga xamante ne am na. Mhm. bu njëkkoon amul mais léegi parce que bu ñu xoolee sax traitement bi am na différence ndax bu njëkkoon boo laajee ñi nga xamante ni mosoon nañu am tuberculose ci ay at ci ginnaaw ginnaaw. naan par jour danga naan déedéet nit mënul naan loolu. Mhm. mais léegi ak xeetu comprimé yi ñu indi léegi ni ñu ko combiné. tax na ba ñi nga xamante dañu am tuberculose tey am na euh, lu toll ci ay comprimé yu ñu naan boo xamante ute na ak lu ñu daan naan bu njëkk ba. Mhm. bu njëkk ba looloo taxoon ñu bari ci nit ñi di faatu parce que daawuñu dem hôpital. Mhm. te dafa nekkoon feebar boo xam ne boo ko amee am na ñoo xam ne dañ ko daan nëbb. également dañ ko daan nëbb. sañ wax parce am jàngoro yu tuberculose ba wér nag. def naa benn portrait bu dee noppi na rek ñu dem régie del siwaat sëkkat su tar si ak waa ji jaar-jaar gu ànd ak kumpa li ko waral li mu yeex xam jàngoro ji. 2005 6 ba 2009 côté pomo gauche bi la nekkoon ndeke nëbbatu léegi nag bi ma demee la daan teg 2009 entrée ñu ñu ñu defal ma euh, opération. pour que ñu ne ma xëy na sa œsophage bi da nga am problème bi ndekete sax du woon loolu ndeke feebar bi moom moo continué woon bay bëgg a jàpp nag œsophage bi te bu continué woon noonu naa am bu laalee xol bi mën naa dem ba mu yàgg ma am jafe-jafe ndax gis naa ñu ne <coughs> euh, demee ba yàlla dogal ma def opération bi ci la docteur yi tuwee que ne am na beneen feebar bu nekk ci ci man ma laaj leen ñu ñu def loo ma ay ay kii analyse biñ defee analyse ba pare daan na ma yow da am da am jàngoro tuberculose ma ne leen waaw waa ji lii di wane ni mësta tay ci faju mi li ci gën a metti gis-gisu askan wi ci jàngoro jii di tuberculose ñenn ñi di nëbb seen jàngoro walla askan wi ko xam di leen daw. ndax man li ma dal li tax mu yàgg dañ ma daan wax ne ma estomac nga yor beneen bi des mooy bu nit feebaratee buñ ko seetee ba noppi buñ ko léeg-léeg nit ki day nëbbu jàngoro day nëbbu li ko dal kim dal moom nga xam ne man dal na ma. dañ lay daw parce que bu saxaat bi nag lañ gën a xam parce que booy dugg ñun nga xam ne ci jàkka yi lañ nekk ci mbooloo yi da gis koo xam ne ki daf koy dal mais dégg nit ñi naan diw sàngam mii day warutata julli si jàkka ji te nag bu la dalee te fee te bi di ba noppi ngay dikk ci mbooloo mi toujours wax dëgg lu mel ne gis naa ci ay ay kii yu bari yoo xam foofu nag faaw ñu ñu defaat ñoom ñi nga xam ne ñooy docteur ñu defaat beneen politique pour nit ñi gën a xam ne lii du feebar boo xam ne nit ñi dañ ko war a daw beneen bi ci mooy ki ki mu dal laa koy wax ñi ñi nga xam ne feebar daf leen dal ñu di ko nëbbu day mel ni seen ak dee la ñu nëbbu ba pare dañuy xaru parce que li la xas dal dal na la ba pare bu mënatul lañ xamuloo ku la ko ko kan moo tax mu dal ba pare yow su fekkee ne feebar buy wàll da nga koy wàll sa waa kon kay di jéem a def ak góorlu ba li la dal na wér. waaw nit ñi bañ laa daw nit ñi moom bu ñu ko xamee dañ la daw Sénégal moo mel noonu waaye sénégalais ñoo war a xam. ne feebar boobu du feebar boo xam ne bu ñu dawloo su dee. ak lu mu mën a dund àndoon na ci ak yàlla moom nit ki day feebar di wér yàlla tamit moo moo moo moo lay teg feebar bu ko neex bu la xasee teg feebar euh, doo ci mën dara léegi la ngay la ngay def mooy naa jéem a xool fu may jaar ba yàlla wéral wéral tamit. waaye seetuma seetlu. ñaar fukki fan ak ñent ci weeru mars bis bi ñu jagleel xeex jàngoroy tuberculose solo si bokk na ci ñaax askan wi. yonent bi nee na feebar bu yàlla wàcc ci kaw suuf wàcc na lu koy faj ba mu des dee képp ku feebarati demal faju kuy faju ji demal ci hôpital yi. yu ci bëri nag ñàkk xam tawat ji moo leen di dal dañ dem ba dañ naan la yàq na sa côté sàngam yàq na sa côté sàngam ba pare feebar du metti loolu moo tax mu doy waar mooy du métti doo xam ne moo la dal tamit moo tax wet googu daal il faut ñu gën ci bàyyiwaat xel ba xam naka la def ba nit ki gën leen a jàngal loo xam ne soo ko yëgee rek surtout nag mu dal la ci pomo wala mu dal la ci xol parce que roq yooyu dafa sori ci nit. wallaay te euh, nit sax dara xajul ci moom euh, moom ñu ngi koy gërëm bu baax ci ni mu nangoo mm. euh, def témoignage par rapport ak feebar bi di fàttali ni moom wér na ci mm-hmm. te jarul ragal daal <laughs> jarul ragal de comme ni mu ko waxee rek xam nga ñu bari dañ koy am di ko nëbb ak yooyu ndax xëy na dañuy jàpp ni kersa la ak yooyu. Mm-hmm. mais xamal ni boo ko nëbbee euh, yaa ngi lor. Mm-hmm. ñi nga nekkal. Mm-hmm. parce que feebar bi euh, bu fekkente ne xam nañ ko ci yow. nga dem am na xeetu traitement bu ñu lay defal boo xamante ne nii boo ko commencé boo commencé jël say garab ba toll ci ci fenn fi. dootoo wàlle. donc mu nekk loo xamante ni daal képp ku ko am war ngaa dem xooli sa bopp. te itam ni mu ni ko waxee ak euh, xeetu forme yooyu ñu junj sànq. du yëpp nag ñooy ñooy wàlle. ndax am na ci boo xamante ni mooy wàlle waaye am na ci yoo xamante ni yooyu du wàlle mm-hmm. Mm-hmm. donc dañ cee war a gën a bàyyi xel mm-hmm. te wax naa ko sànq également Pape Cheikh muy tolluwaayu jàngoro ji fii ci Sénégal lool laa loolu la bëggoon laaj sax situation wu tuberculose fii ci Sénégal mi ngi noonu li ñu duppee taux de prévalence wàññeeku na bu ñu nee taux de prévalence nag mooy ñi nga xamante ni ay euh, infection yu bees la. ñu ñu gis ci ñoom tuberculose loolu wàññeeku na waaye tey li nga xamante ni moom mooy problème fii ci Sénégal. mooy li ñu duppee euh, tuberculose multirésistante. Mm-hmm, mm-hmm. loolu bu ñu ko déggee mooy ñi nga xamante ni dañ leen di faj. te seen euh, yenn xeet garab yi nga xamante ni moom lañ leen di faje mm-hmm. seen yaram nangu ko mi ngi seen seen yaram sax dafa dafay résister ah. waaw dafay maanaam seen yaram garab yooyu mënalu leen dara donc loolu mooy maanaam dañuy résister seen yaram mënul moo koy def ba nga xamante ne loolu en général li ñu ne moom moo koy gën a favoriser mooy par exemple ñi nga xamante ne mës mësoon nañu am tuberculose te fajuñu ko correctement. correctement mm-hmm. parce que tuberculose traitement bi dañu naan bu fekkente ne tuberculose boo xamante ne bu simple ak yooyu juróom benn weer yu njëkk yi mën nga ci wér. donc bu fekkente ne garab yi ngay jël jaarul yoon. loolu daf lay indil li ñu naan day dem ba nga xamante ni nii mën nga defe ne tane nga affaire bi kiyaat léegi ñoom dañoo war a commencé waat yeneen xeetu traitement yoo xamante ni moom lañ lay defal. loolu moo nekk loo xamante ni fi mu ne moo gën a jaaxal fii ci Sénégal. ma ñëwaat ci ay chiffres bu ngeen ma ko mayee muy euh, ci atum 2006 euh, rek bu ñu seetloo. prévalence moo doon wax wàññeeku na ndax taux bi téeméer boo jël mi ngi nekkoon fukk ak juróom-benn. Mmh. prévalence bi téeméer boo jël non résistance bi laay wax sax damaa juum résistance bi téeméer boo jël mi ngi nekk fukk ak juróom-ñaar ute ak bi nga xamante ni fukk ak juróom-benn la woon ci atum 2006 donc mu wan ni multi résistante bi ñuy wax dafa gën a yokk waaye tamit nañu jàpp ni région yi nga xamante ni moom moo gën a touché mooy Dakar Dakar waaw il moom la ñuy après Thiès ci topp defe naa Thiès ak Diourbel Dakar sax la ñu naan épicentre de de l'infection parce que Carrefour la en fait Dakar mi ngi noonu parce que bi tey boo jëlee téeméer boo jël ci xeetu xeetu bi de tuberculose multirésistante bi téeméer boo jël. ñeent fukk yi ak juróom-ñett Dakar la ñu féetee. mu topp si Thiès. Mhm. ak Diourbel foofu téeméer boo jël fukk la ak ak ñaar. donc luy wane ni kon euh, ñetti région yi. Mhm. Dakar Thiès Diourbel. Mhm. mooy euh, région yi nga xamante ne daal ñoom la tuberculose gën a sonal rawatina ak région de Dakar. lan mooy solution bi pour xeex ko ci sa xam-xam bu gàtt rek. mi ngi noonu sama xam-xam bu gàtt solution bi mooy euh, ñi nga xamante ni dañu amee jàngoro yu tuberculose. nañu respecter seen traitement. maanaam respecter seen traitement loolu mooy mën a tax ñu mucc. ci amaat am affaire bi feebar bi dekkiwaat ci ñoom. Mhm. parce que tuberculose li ci garaaw Pape Cheikh mooy. Mhm. mën ni ñu koy waxee bactérie bi mën na dund ak mën na nekk ci yow ay at. te doo ko yëg te doo ko yëg. parce que da xam nga ñu bari dañu defe ni xëy na tuberculose ci saase rek mën nga nekk ak kenn koo xam ne mën na la ko wàll. Mhm. mais yow après ni ngay dundee jaar yoon ngay am alimentation bu baax loolu dafay résister contre. bactérie bi dafay résister contre bactérie bi. léegi su ko defee bu fekkente ne nag dem nga ba nga xamante ne sa alimentation sa lépp jaaratul yoon nga dem ba ay at nga jékki-jékki feebar bi génn nga ne ah man de yaakaar naa ne fii laa ko jëlee wala fee laa ko jëlee fekk na mi ngi ak yow lu yàgg. depuis longtemps mais dafa mooy mooy li ma wax sànq xam nga ñàkk farataal dem kër docteur def bilan mooy indi yi yëpp. parce que ñun lu ci ëpp dañoo jàpp ni fekk yëguñu métit feebaruñu te yenn sax yi am na am na ci ay feebar yu seytaane yoo xam ne mhm. sa yaram la ñuy ne on les appelle des maladies sournoises c'est ça nekk sa biir te doo ko mu dem ba gàllankoor la moment bi ngay yëg métit bay dem hôpital day fekk mu trop tard retard moo tax c'est toujours bien nu on dañuy doon jàngal nii ñetti weer yu ne war nga dem defi bilan nga dem xool am na benn affaire bu amoon ci quartier yi xaw ma ndax mu ngi am ba tey bi ñu nekkee xale euh, am na ñu daan wër di euh, bënn di jël suñu deret di xool ndax am nañu ay feebar ak yooyu loolu xaw ma ndax mu ngi amati ba tey war na amaat ci dëkk yi ah dafay gën a tax nit ñi bu ñu ragalee dem ñoom ñu fekk si ñu xëy na am na mais bu fekkente ne am na tamit xam naa ni nekkul loo xamante ni ñëpp xam nañ ko wala mhm. nit ñi teg nañ seen bët loolu war nañ ko doole mais bu weesoo également ñi feebar structure sanitaire yi nga xamante ne ñoom ñooy faj également wàllu tuberculose dañ leen war a gën a équiper. jàppale leen. parce que bu weesoo euh, malade yi nga xam ne dañoo war a jug dem faju ji. Mm-hmm. yenn ci structure yi amuñu yenn jumtukaay yi. Mhm. parce que tey boo xoolee ci région yi gën a sori ci ci ci Sénégal. Mhm. amuñu yenn structure yi pour diagnostiquer feebar bi. Mhm. donc dañ leen war a gën a équiper loolu également ci la bokk Pape Cheikh. voilà en tout cas je pense que leer na ñu ngi lay gërëm bu baax euh, mieux vaut prévenir que guérir euh, euh, di moytu dafa am solo boo nekkee ci àddina ndax nit moom dara xajul ci moom hélas nag fu ñu tuddee feebar mu ne pat. <laughs> dama dama kii rek dama <laughs> yàlla yàlla baax na yàlla baax na euh, jërëjëf Fatou ki ñu ngi lay gërëm bu baax euh, ci gindi gi nga ñuy gindi euh, ca kanam itam daañu waxtaane waat lépp lu jëm ci wàllu wéru yaram xam nga garab yi yenn saa yi nit jëfandikoo ko comme li biisu wax sànq mm-hmm. yenn saa yi nga jël garabu nopp foog ni foog ni foog ni garabu garabu bët la mm. ba mu indil la ay conséquences loolu bëri na lu ñu koy dund fii ci Sénégal te bëgg nañ ci waxtaan ci kanam yow loo ci xalaat ah loolu moom lu am solo la parce que euh, Sénégal moom xam nga ni ñu leen di faral di waxee sénégalais ñu ci bari dañoo tàmm fajal seen bopp mm-hmm. dañuy jàpp ni lii dal na ma ah kii gisoon naa ko mu jël lii man yaakaar naa su ma ko jëlee dina ma faj te fekk mm-hmm. na yow garab bi ngay jël sax xamoo ban xeetu garab la mm-hmm. donc ñun duñu ay spécialiste ñi ñu war a digal ay garab mooy docteurs yi donc ñooñu la ñu war a dem di seeti koy soññati rek askan wi nañu gën bàyyi xel ci seen wér gu yaram wax nañu ko. Mhm. fegoo gën faju voilà jërëjëf bàjjenu gox euh, ñu ngi lay gërëm bu baax euh, ci euh, wér gu yaram bi ba alxamis ba li di ñëw bu soobee yàlla nga ñëwaat ci beneen xeetu feebar boo xamee ni di nga ñu ci gindi pour ñu moytu ko dañuy wéy